哎，你干啥 yaa ngi si jàmm. alhamdulilah. def leen nag. génn leen. bu dee àndul. non du looy rek da ma wax ni fii. yaa ngi ma ñun sécurité def liggéey rek. maman ñu noonu. waaw xaa ah, ah, doxeen doxeen waay doxeen doxeen sama xarit mais xaadim jinne ana jinne yi. yaa moomu kawe yaa moomu kawe yaa moomu kawe yaa moomu kawe yaa moomu kawe boo génnee embouteillage bi day bari de. yaa ma ñëwoon yaa ma ñëwoon boo génnee dégg nañ la taal yaa ma ñu taal. boo ñu dee ba ñibbi. waaw xam nga loolu yaa ma ñëw dégg nga ñu. yaa ma tax ma ñëw ci kër gi. boo ñibbee ma ñibbi déwén lay ñëwaat déwén lay ñëwaat. yaa ma ci kër gi léegi ñu ne maa ngi nii ñu bëri nii. fu mu jaar rek foo jaar rek nii lay mel. foo jaar nii lay mel. lampi milliard bi tiim sëñ Bamba sa bay. bi nga màggee baax parce que du nga bokk kenn gënu la. soxna moom mi ci taar bi waaye soxna moom mi ci jot. waaye boo wàccee Tiwaawan da ngaa ñibbi sa kër maam. ah boo ñëwee Tiwaawan da ngaa ñibbi sa kër. waaye da ngaa ñibbi sa kër maam. waa jàngoo suukar bu gën a yéex a ñibbi ko daa yëgul. Kéjëf yal na yàlla guddal sa fan. waaw waaw Kéjëf yàlla boo kay wuyu. waa kii la jàll bay kii bu jàll yëpp. seen yaay